communiqué bi moom boo ko liiree. Mhm. mais c' est tellement laconique passage boobu. Mhm. des personnes privées de vote. Mhm. loolu ñaata nit la au Sénégal. loolu c' est des milliers et de personnes au Sénégal. ñoo xamante ni présentement dañ leen a privé de vote. c' est des milliers. absolument <laughs> léegi nag bu nekkee ne dafa wax pour euh, ku mel ni euh, Ismaïla Madior Fall. nga comprendre lu tax maître Malick Sall jóge foofu. parce que texte bu war a subtiler noonu. je pense pas que ne euh, maître Malick Sall mënoon na si génn aussi facilement. il fallait quelqu'un comme Ismaïla Madior Fall pour mën a euh, euh, comprendre yenn subtilité yi. ba pare def loi boo xamante nii parce que comme nu nga ko waxee sax loi d'amnistie nekkul ay nit lay viser. ay faits c'est des faits <coughs> ñu def de sorte que dina am ñoo xamante ni moom ci ay waxam dinañu mën a revenir dans le jeu politique. Mhm. mais bu ñu defee amnistie du nekk faire ay revenir des gens dans le jeu politique. rek lay mhm. signifier. Mhm. loolu kay xanaa moo nekk conséquence bu gën a gën a gën gën a ndaw. absolument moo gën a nekk conséquence bu gën ndaw. ce que je veux par là parce que Sénégal ce n'est pas la première fois ñuy voter loi d'amnistie. Euh, euh, su ma juumul le 7 janvier 2005 la woon la ñu voté loi euh, d'amnistie loi Ezzan. Mhm. bu ñu nee loi Ezzan au Sénégal ñëpp seen xel ci lu muy dem mooy assassinat maître Sèye. Mhm. Euh, puisque <laughs> dañu ne euh, fee nga xamante ni c'est de nu mu doon 93. 93 à 2004. Mhm. yëpp ayant trait crime wala délit. yoo xam ne dañu am rapport ak ay élection dañ koy effacé xam nga loolu la ñu bindoon ñë xelu ñëpp dem ci maître Babacar Seye ak li ci xewoon ba mhm. jàpp ne sax maître Abdoulaye Wade quelque part dafa bëggoon a protéger ñi jàppee ne ñoom ñooy eh, ñi ko def ak ñi ko commandité mhm. seulement <laughs> bu ñu nee 93 ba mille 2004 mhm. nekkul affaire maître Seye kese moo fa xew nekkul eh, assassinat maître Babacar Seye rek moo fa xew en euh, 94 février amoon na fi une manifestation boo xamante ni au Sénégal six policiers minimum officiellement. Mm -hmm. officiellement laa bu woon wax six policiers officiellement décédé woon nañ ci. mais loolu personne n'a n'en parlé alors que maître assassinat maître Babacar Seye kenn mënul woon a wax ne euh, jusqu'à présent kenn waxul ne justice jugé na maître Abdoulaye Wade wala am na ay faits yoo xamante nii wone na ni maître Abdoulaye Wade kat il est derrière assassinat maître Babacar Seye mais pour manifestation bi nga xamante ni amoon na février 94 ñëpp xam nañu ne mu ngi déparé ci benn manifestation boo xamante ni wala bokk ñu bëri xam nañu ne mu ngi déparé woon ci manifestation boo xamante ne ni opposition bi moo ko organisé woon parce que jamono yooyu février 94 ci la ñu doog a def dévaluation du franc CFA. Mm-hmm. à un moment donné <laughs> parce que Abdoulaye Wade dafa demoon ba am dëgg ci le président Abdou Diouf parce que Abdou Diouf dafa génnoon ouvertement mu ne le franc CFA ne sera pas dévaluer ñu teg ci quelque temps après rek franc CFA bi ñu dévaluer ko opposition bi gën a am euh, kaddu gën a am crédibilité gën a wone ne président bi kat dañ ko fay teg mais moom contrôlé wul sax li xew. Mhm. discours bu facile. opposants yi organiser manifestation bi manifestation bi demee ba xumb Ablaye mhm. Wade moo leen laaj ndax vous voulez marcher ñu ne waaw mu ne eh bien marcher ci manifestation boobu la mhm. gars yi jóge ànd ak Moustarchidine attaqué palais mhm. bi ci la ñu rey six policiers pourtant loolu c'est classé aujourd'hui à grâce xawma à cause laay wax loi d'amnistie bële nga xamante ni ñëpp da seen xel ci affaire Babacar Seye la demoon te pourtant fexe nañu ba couvrir aale yooyu nga xamante nii rey nañu leen ci manifestation boobu. Mhm. li ma bëgg li tax ma joxe comparaison boobu mooy. Mhm. bu nekkee ne nekkul ay nit la ñuy viser. parce que mhm. ñu ngi tudd turu Karim Wade di tudd turu Khalifa Sall. mais tey bu ñu nee comme ce qui s'est passé ci dernière loi d'amnistie bi ñu ne tous les. crimes économiques et délits euh, économiques wala financiers. dindi nañ leen. <laughs> mais yow li nga toppee Karim Wade. ba juger ko. ba condamner ko. mais mun nga koo toppee képp ku wër Macky Sall. enrichissement illicite. waaw mun nga leen koo toppee. Hmm. donc soo effacé lee Karim Wade forcément di nga effacé Macky te surtout moom war nañu wax huit milliards yi nga xamante ni déclaré na ko comme patrimoine fan la ko jëlee. Hmm. bu ñu voté loi d'amnistie boo xamante ni par exemple dafa jël de deux mille à deux mille vingt deux parce que subtilité yooyu moo tax ma ne la il faut ku mel ni Ismaïla Madior Fall Macky indi ko ci. Hmm. bu nekkee ne dañoo wax de deux mille à deux mille vingt et un hmm? imaginel ne képp koo xamante ne nii mës ngaa détourner un franc Sénégal nekkul ne dañuy effacer affaire bi de. Mhm. parce que si nekkul ne délit yi la ñuy ak crime yooyu dañuy ne képp koo xamante ne nii sax wax nga ci <laughs> képp koo xamante ne nii wax nga ci. Mhm. yoon mën na la topp. Mhm. aujourd'hui par exemple euh, munoo waxati ne maître Abdoulaye Wade mooy commanditaire. Euh, euh, ñi ñi def lii wala ñi def le soo ko waxee yoon topp la c'est aussi simple que ça donc en voulant laver Karim e xalifa Sall Macky Sall va aussi sa laver lui et sa famille. Mhm. Georges Nesta euh, comme ni ko Mame waxee ñu bëri aussi di ko di ko di ko di ko craindre bu ñu defee amnistie ni crime économique ci diggante diir bii nii dañ koy effacer da nga ragal que impunité gën a sax ci réew mi. non xam nga. boo boo liiree le communiqué du conseil des ministres. Mhm. tant que gars yi demuñu ba euh, libellé. xaati maanaam. Euh, projet de loi bi projet de bi. Mhm. am na yu bëri doo ko xam xam nga su ma retourné par exemple au fameux la loi d'amnistie bu ñu voté woon en 2005 pour les pour affaire bon du ñu wax affaire maître Sèye mais boo retourné si loi boobu boobu sax dafa amoon def ko encadré woon. c'était pas depuis 83 c'est depuis 83. non 93. 93 2004. c'était pas 1er janvier 83 au 31 décembre 80 2004 je crois bien hein? mais j'ai l'impression que ça a même. Euh, le le le les affaires là. Ah quatre, quatre, c'est, c'est, la loi la loi avait débuté hein, le 1er janvier 83 pour couvrir les événements même de 88. 80 waaw 93 xam nga loolu c'est les trucs mais hmm. demoon na ba retourné en 83. ok il est la loi était allée jusqu'en 83 1er janvier 83 mais. pour rappeler tout simplement xam nga am na xam ne ñuy dé ñuy dégg dañuy dégg amnistie mais amnistie ak grâce c'est différent hmm. waaw depuis démb dama koy dégg mais amnistie ak grâce c'est différent amnistie grâce bi moom da nga da nga sàcc béy wala nga sàcc nag wala nga sàcc portable ñu tëj la fukki fukki at wala juróomi at ñu jékki-jékki fête de l'indépendance jot wala premier euh, premier. Euh, euh, nu mu sax premier de premier janvier jot. wala fête tabaski jot wala feet Korité veille président Macky Sall ou bien président de la République jël ay bikam ne diw grâce nañ ko diw grâce nañ diw grâce nañ ko foofu ay tour la ñuy wax. Hmm. boobu nag grâce boobu terewul sàcc nag bi nga sàccoon noonu mu ngi si kayit bi. Hmm. sàcc téléphone portable mu ngi si yow daal da libre rek mais li nga defoon mu ngi mu ngi fa tege. par contre te kooku ay tur nit la ñuy cité alors que amnistie amnistie duñu cité bi kenn effectivement c' est des faits dañ rek diggante telle date telle date kuñ fi mosal tëj ndax euh, sàccum téléphone wala sàccum euh, xawma nag wala lii. efface nañ ko non seulement dootuñ ko wax mais dootoo gis fu ñu ko bind comme ni ko wa wàcc rappelé léegi kenn amatul droit wax ko bu fekkee sax ñu dàqoon la si liggéey bi nga daan liggéey ndax loolu. dé président mën na jëlaat décret pour réintégrer la sa fonction mais du tax nag nga ne tëdd naa fukki at kaso nañ ma delloo xaalis boo xam ne tëdd naa ko comme defatuma dara. Mhm. non loolu moom cas spécial la. par contre lu tax sénégalais def le raccourci ne kon décret euh, affaire bi Karim lay visé wala. Euh, wala Khalifa. c'est que depuis depuis euh, boo boo rappelé wu c'était au mois de décembre. président Macky Sall demoon na fële France dafa benn interview ak France 24 ak RFI. Mm-hmm. Mm-hmm. ba ñu laaj ko waa loo xam si affaire Karim ak. Euh, Khalifa Sall nga amnistie leen. mu ne ah maa ngi koy xalaat de. Mm-hmm. mais comme yoon mu am na damay bàyyi yoon bi xalaatee ko nu mu gën a rafete ak nu mu jaaree yoon. Mm. loolu la tontu woon. alors ñëpp daal di kon commencé naan kon kii am na lu muy calculer. Euh, am na kuréelu imam wala en tout cas des chefs religieux. ñu demoon si moom tamit ne ko léegi daal pour apaiser climat politique bi comme ñu ngi jógee si jàggu dialogue politique il faut forcément wala en tout cas daal nga envisager amnistier ñenn euh, ñoo xam ne ñu gis acteurs politiques yi. Georges Nessa li nga doon wax mi ngi nii sont amnistiés de plein droit toutes les infractions criminelles ou correctionnelles commises. Oui. tant au Sénégal qu'à l'étranger, en relation avec les élections générales ou locales, mm -hmm. ayant eu entre le 1er janvier 1983 ah et le 31 décembre 2004, si, si, si, a remonté jusqu'en 83 parce qu'il y a eu... Euh, les événements de 88. Les événements a remonté de 83 au Mais pour revenir au cas de Nyom Khalifa et effectivement, Lolo Tahon, buñ ko buñ ko gisee dem ba ñëpp daal dem si noom mais effectivement ñëpp ñu bëri que que tu sois jugé wala que tu sois pas jugé loi bi def lay yóbbu parce que Karim ñu ngi koy tëjee enrichissement illicite. Mhm. Euh, Khalifa ñu ngi koy tëjee détournement deniers publics maanaam pour lu bëri askanu réew mi. Mhm. kële ñu ne. dafa riche. ku luubal askanu réew moom foo noo koy defee ak nooñu luubalee askanu réew mi. waaw non xam nga buñ ko voté nag xam nga loolu nag bu ñu fekkee ne ñoom. dañoo toog ku luubal askanu réew mi wala alalu réew mi. alalu réew mi alalu askan wi voilà askan laa bëggoon wax. léegi boo ko bindee boo ko bindee noonu. ku eh. luubal alalu askan wi. Eh. wala ak koo xam ne dégg nga li ngay yore méngawul ak loo xam ne loolu nga yelloo. ci sa am am ak sa liggéey maanaam enrichissement illicite kooku yëpp ñu def ko. am ñu ko xaatimee Karim wat ak euh, Khalifa jugé nañ leen loolu loi bi def loi d'amnistie da koy prévoir mais même bu ko bindee comme ni ko Abdoulaye bindee woon ci temps temps loi Ezzan maanaam bu fekkee ñu jugé di attéwuñ la wala ñu attelé tamit c'est la même chose. jugé ou non jugé ou ñëpp ñoo xam ne fii nag. kon kenn dootu laaj suñu quatre cent mille francs. <laughs> fii non non ko kay jeex na <laughs> parce que kooku kooku dañ koy. kooku kay kenn quatre cent mille kenn dootu ko laaj. kon fii ba nag ñi fa nekk ak président Macky Sall yëpp kenn dootu leen mën a poursuivre ne da ngeen luubal askan wi kii. Euh, alalu askan wi ça serait très grave. askan wi moom dina <laughs> dina am solo ko luubal moom yàlla ngay amal affaire donc mais pour pour revenir en tout bu fekkee ne ñoom lu ñu luñ si jublu mooy. Uh-huh. luñ si jublu mooy euh, jilaat Khalifa ak Karim dugal leen si biir langue politique bi soxlu woon sax amnistie parce que Khalifa ak Karim. Uh-huh. lu leen génnee si affaire code électoral code électoral moo leen génnee si affaire élection. électeur. électeur parce que code électoral moo ne seen benn loi moo ne buñ la tëjee tant de mois rek mënatoo nekk électeur te kenn mënatu la élire. donc loi boobu rek ngay dem code électoral dindi ko boo ko dindi woon rek soxlaatul amnistie mais booy amnistie rek ça veut am na li nga si jub leneen loo xam ne du ñaar ñooñu rek ñoo si bénéficier mhm. mais ñeneen sénégalais nañ si bénéficier mhm. mais mhm. bu fekkoon rek pour replacer Karim ak euh, Khalifa bu ñu demee si code électoral mën nañ ko arrangé parce que mën nañu dindi loi boobu rek loi bu leen tere ñu nekk euh, nekk am carte d'électeur loi bu leen tere boo gisee nag ñu étendre am na ñu koy bindee daal xam naa 400000 kenn dootu ko laaj fii Sénégal. <laughs> Ramatoulaye tey jii laaj ñu topp la ngay wax. waaw laaj ñu topp la absolument laaj waaw mën nga ko laaj mën boo boo nekkee fii sa studio di laajte mais boo waxee diw diw parce que en tout cas si li ma gis Clédor am na gars yoo xam ne dañuy kon ne di waxturam bu def demee demee si émission yi si télé yi. Mhm. plateau télé yi am ñoo xam ne dañ naan. ci commentaire ci commentaire yi kii amatul droit wax lii kii amatul droit wax lii parce que léeg <laughs> mais <laughs> foofu rek lañ si ñemee yem. waaw kenn du toog ci télé wax ko de. kenn ñeme kenn ñeme ko wax. te Clédor sax bu nekkoon ci pouvoir bi gëm naa ni commentaire yooyu sax du am de. Ah, mais moom sax def ko neex mu si. Euh, sëgg rek mais bu ko bu ko neexoon ku ko wax mu yóbbu la léegi ak euh, li euh, Georges Nesta wax euh, nan ngay comprendre opposition bi nga xamante ni bokkoon na quand même ci seen campagne que ni dañuy delloowaat euh, Khalifa Sall ak Karim Wade seen seen droit nañ leen amnistier ñu mën a bokkaat ci ay élections parce que jamono ji nag ñu ngi changé wax di waxu code électoral mais jamono ay élections euh, lu mu tudd campagne bi. Mhm. ñoom ay waxu amnistie nañ doon wax. Mhm, moom lañ doon wax mais tey euh, Pape boo gisee ci lii nga xamante mooy communiqué bi roté ci conseil des ministres nga mën a xam ni rek kon ce sera qui va changer ci espace politique li ñu doon wax mooy ñu revoir procès bi mais je pense que comme ni ñu koy wax rek en français faute de grief on se contente de merle tey jii waruñu mën a bañ lii parce que euh, li tax muy rechanger waat doon bi euh, boo leen indee xam naa ni euh, tey jii ñoom tamit waa président Macky Sall li mu ci jublu du question rek bëgg ñaar ñii ñu delloo leen seen droit civique tout mais leneen li ci li ci laxasu mën nañ ko wax ni c'est pour également barrer la route à Sonko ndax bu fekkee tey ji gis nañu ni xalifa euh, Sall ak ñoom euh, dañu nekk ci benn coalition muy coalition Yewwi tey jii bu fekkee am na léegi delloo nañ koy ay droit ba nga xamante ni mën na euh, daal di nekk candidat ci présidentielle deux mille vingt quatre bii ñu jublu. Mhm. su boobaa dinañu ne kon seen compagnonnage bi nan lay bindoo est-ce que kon Khalifa day continuer toujours nekk ak ñoom Sonko ñu jiital Sonko ci euh, présidentielle bi wala Khalifa aussi day ber daaraam

ba jël euh, réew mi luñ euh, koy waxatee kii de ay compte moom dinañ ko rendre compte ndax chaque jour ñu dégg ko fii également ñi nga xamante ni dañoo laalee ci les deniers publics et ak gestion yi nga xamante ni confié woon nañ leen ko su boobaa ku ci nekk di nga rendre compte donc léegi euh, mën nañu ne lii day ñëw daal di euh, indi benn solution par rapport ak xam naa ni équation yooyu yëpp nga xamante ni président Macky Sall amoon na ko changé donne politique bi Karim également ñi ngi naan dafa exilé wu moom carrément que ni euh, réellement que loxo nji Macky Sall mi ngi ci woon li koy firnde bu fekkee am si bi am na dina mën a dellu si waat su boobaa kenn du ne bokk moom moo fa téye boppam mhm. et euh, façon bi nga xamante ni demee woon na ko en exil exil forcé kenn on pose l'interrogation mais quoi qu'on puisse li liñ ci mën a retenir rek mooy chambouler un peu cet espace politique loolu lañ ci jublu mhm. amaana moom danaan xëy na su boobaa Euh, kenn xamul ndax procès euh, aji Sarr Sonko même bu fekkee tey jii nit yi waxuñu ko bu ñu écarté leen li ma man li ma xalaat book mooy mhm. euh, tey jii président Macky Sall bu fekkoon amnistie wul ñaar ñii di Karim ak Khalifa su boobaa mu bëgg présenté waat en 2024 kan mooy nekk ay adversaire politique am su fekkee dañoo sukkandiku tamit ci procès bi toujours pour mën a faagaagal Ousmane sonk kon su boobaa kan mooy nekk adversaire politique am il est obligé donc mu amnistie ñee pour mu am ñoo xamante ni dinañ taxaw en face pour mën a jonganteeg ñooñu su boobaa nag euh, day nekk beneen euh, beneen euh, don politique ba nga xamante ni nag et puis ñi fi nekk dinañu choisir ce sera la population de choisir mais toujours est-il que ni c'est pas ni moom bu fekkee dem na ci élection yi malgré ñi ngi bëgg faagaagal kenn fii bëgg indi ñeneen ci ëttu politique bi pour changer lépp su boobaa kenn waxul tamit ni ñi nga xamante ni ñoom la fi teg population bi du ñu ëlbatiku ñu ñooñu d'autant plus que gis nañu tey ji li nga xamante moom la ñuy dund muy euh, vie bu métti également espace politique bi moom également ay décisions yoo xamante population bi doy nañ ci même cette euh, nouvelle donne am na lu bëri yoo xamante ne ay risques la aussi on pourra dire sa sera à ces Euh, Mame Birame tey jii euh, da nga jàpp que ni le président Macky Sall dafay defaale euh, bien que ñi nga wax waxu impunité bi nga xamante ni bëgg na ko bu fi jógee 2024 mais danga jàpp ni jamono jii dafay dafay diviser waale opposition bi pour gën a mën a régner wala seen candidat benn bokk yaakaar 2024 mu bañ a am ay jafe-jafe. non de toutes les xam nga déjà rien ne garantit à Macky Sall que. loi d'amnistie bu amee xalifa Sall ak Ousmane Sonko du ñu ànd ci benn coalition amul lenn lu ko koy wax c'est vrai que changé nañu euh, constitution bi 2016 wax ne ku amul ku am lu ëpp quinze ans dootoo bokk ci élection présidentielle te xalifa Sall soo xoolee agem mun nañu wax ne bii mooy dernière élection donc boo xamante ni moom mun na ci participer. bu jàppee loolu ba da day présenté wu mun nañu wax ne xëy na mun na leen a diviser mais jusqu'à présent y a rien qui dit que euh, am loi d'amnistie bu amee yeeyu askan wi day exploser rien ne le dit et de toutes les façons ñoom je pense que bi ñuy teg seen coalition bi waxoon nañ ne dañuy ànd ci local yi ànd ci législative yi bu ñu paree ku nekk xool ku la arrangé nga ànd ak moom pour dem élection euh, présidentielle donc de ce point de vue là pour man amul division s'agissant maintenant de euh, euh, Karim Wade loolu moom c'est une autre autre autre affaire euh, <laughs> wax naa ci sama live bi passé moom laa ko bëggoon a parce que c'est plus ou moins complexe su ma si duggee du ma ci mën a wax cinq minutes bàyyi mais Macky Sall euh, amnistie Karim Wade naka jekk lu mu prévoir la ci agenda am naka jekk lu mu prévoir la ci agenda am euh, maintenant question yi nga xamante ni war nañu ko poser mooy est-ce que war na Sénégal war na de 2012 à 2016 mu nekk ci de <coughs> pratiquement sax premier mandat wu Macky Sall bi laay wax 2012 euh, ba 2019 pratiquement Sénégal ci lu mu nekk mooy traque des biens mal acquis ñu mobiliser toute la République Pape Makhtar suñu la waxee les milliards les dizaines de milliards yi nga xamante ni Sénégal débloqué na ko pour envoyer ay commission rogatoire un peu partout dans le monde ñu ne dañuy wër xaalis bu Karim Wade denc ñu organiser procès boo xamante ni mobiliser na Sénégalais yi pendant des années ñu nekk ci affaire Karim affaire Karim affaire Karim ba au finish ñu ne Karim Wade kat condamné nañ ko war naa fay cent trente-huit te <laughs> xëy na ñoom <coughs> pardon ñoo ci dugal crédit ba tey Karim Wade ñu bëri jàpp ne Macky Sall daf ko euh, maltraité daf ko martyrisé alors que entre 2011 et 2012 su ñu jàppoon Karim Wade di ko toppee xaalisu Sénégal du bett kenn suñ ko ci condamné du bett kenn mais avec la CREI c'est devenu une machine à victimiser quelqu'un on se rappelle Karim Wade ak euh, nu mu tudd la mise en place de son euh, mouvement la génération du concret pratiquement ñu bëri sax dañ ne woon c'est le premier ministre du Sénégal tellement responsabilité yi ko papam confié woon moo bari. donc tey bu ñu demee ba kooku noonu CREI yi ko ba teg ci moom ay daan ñu ne léegi li ñu def noonu yëpp dañ koy jël effacé ko nële 138 milliards yi nga xamante ni ñu ngi ko ko doon toppee léegi amatul solo dañuy def de sorte que mu ñëwaat mu reveniraat blanc comme neige euh, bu ñu ko defee ak Khalifa Sall def ko ak yeneen euh, yeneen yeneen responsable politique yi moom. jarutul kenn di toog ci plateau tele di kaas li xew Sénégal bu boobaam dañuy d'accord que politicien mën na fi nekk jàpp ne euh, nu mu tuddati liñ ko dénk moom moo ko moom nu ko neex la koy euh, doxalee te bu pare daara du ko ci fekk waaw kooku moom <laughs> mun nañ koo assurer du jarati kenn di toog ci plateau télé di wax lii wala léeg donc tey malheureusement nag ci piège bi Macky Sall dugal ñëpp mooy la loi d'amnistie enrage tous les politiciens pratiquement à part ay Bougane laa gis ñuy xataraayu mais sinon ñëpp la loi d'amnistie bi enragé kenn rek la enragé wul mooy peuple sénégalais kenn mënul wax ne loolu enragé na le peuple sénégalais non seulement dañu mobiliser la république nekk fi di reyante ci mbedd yeeg lu ne nu mu tuddati mobiliser de l'argent dem un peu partout dans le monde di wëri xaalis lu ne Sénégal euh, dépensé ko ci mënuñu xëy du jour au lendemain ñu ne loolu yëpp effacé nañ ko sombre. comment comprendre tey jii Georges Nesta état bi nga xamante ni euh, moom moo doon topp nit ci enrichissement illicite état boobu wëlbatiku ni dafay dafay amnistier fee yooyu nee nañu bu ñuy rendre justice c'est au nom du peuple sénégalais li Mame Birame wax bu ñu condamné Karim Wade ñoom ñu ko condamné woon ni Karim Wade yoreel na 138 milliards euh, état du Sénégal yoreel ñu ko ñun ñi ñoom est-ce que mën nañu comprendre bu ñu delluwaat ci kalamu sénégalais di naan loolu ñu waxoon de euh, mën nañ jàpp ni amul waaw parce que euh, si xelu sénégalais sénégalais yu bëri aussi lu ñu comprendre si affaire wu kaaw Khalifa Sall ak euh, euh, bu Karim Wade c'était assez spécial. Mhm. d'ailleurs Karim benn cour spécial moo ko moo ko condamné. moo ko jugé condamné ko ba mu taxoon sax ñi mu àndal bu ñu waxee waxu grâce ak waxu amnistie dañu mos ne ñu loolu nuñ bu ñu bëggaat ñu tegalaat ñu réviser procès bi. defaat beneen procès defaat beneen procès. Euh, kaaw euh, Khalifa Sall même chose. Hmm. dañu waxoon ne ñi mu àndal dañ jàppoon ne kii daal lu taxoon ñu tëj ko nekkul woon lu mu daan lu mu daan gérer mairie wu Ndakaaru. il n'a jamais été demandeur de grâce. il n'a jamais été demandeur de grâce. te hmm. lu ko yóbbu kasu tamit. am na ñu bëri ñoo xam ne xelu xelu Sénégal yu bëri dañ jàppoon ne kii daal dañ ko bëggoon a euh, faagaagal si mbirum avenir politique am rek. parce que Mbaye Ndiaye wax na ko nee na ko yow boo bëggee sa jàmm yaram ak sa avenir politique ñëwal si ñun. Mhm. donc loolu c' est c' que donc kooku nu ñu ko jàppee ak lu ñu tax nu ñu ko jiiñ euh, vraiment du woon loo xam ne jaar na yoon wala jaroon na sax ñu yóbbu nit kaso. Mhm. mais quoi qu'il en soit si problème amnistie bi euh, président Macky Sall moom dina si gagné sur tous les plans da siy gagné sur tous les tableaux boobu mën a calculer da si gagné. parce mhm. que premièrement gis nga bu ko deful woon. je crois que Ramatoulaye moo ko doon wax léegi c'est-à-dire opposition bi fi nekk bu ñu def campagne dañ ne bu ñu yegee assemblée dañuy euh, voter une loi d'amnistie pour euh, ñoo xam ne dañu perdre seen droit. Mm-hmm. ba yaakaar naa loolu bokk bokk na si parmi les causes yoo xam ne moo tax ñu def seen intercoalition wàllu ak Yewwi Askan Wi parce que xam ne def dinu am na foo xam ne au moins bu ñu bokkulee programme de de truc de de gouvernance parlementaire dañu retrouver tout autour dans certains points mm-hmm. donc moom xam ne loolu bu ki gars yi ñëwee rek ils vont poser ce proposer ça alors lui il prend les devants daal ne loolu bu ñu ko defee tey loolu bu opposition bu ko defoon tey ak ni composition euh, euh, assemblée mel tey mën nañu gagné te bu ñu gagné bu boobaa nag président assemblée nationale président de la république doo dootul xam nu muy doxee parce que nee naa pourtant man j'avais l'occasion ma nekk initiateur de cette loi initiative bi. waaw au moins là. dina xam ne man maa ko proposé et au jeu de la de ah, l'opinion ah nationale c'est différent de su ko opposition bi tout xam nga lépp texte bi tout dépend ni ko bindee waaw moom la laa rek mais solo selon la configuration assemblée bi tey assemblée bi par A B boo leen fa yóbboo nee leen euh, amnistie wu Karim bon parce que bon duñ ne amnistie Karim mais nuñ koy. libellé mm. nuñ koy formuler opposition am na de large chance gagné ko. te am na ñu ko formulé sax am na ñoo xam ne tey ñu ngi nekk biir assemblée nationale nekk bokk Benno Bokk Yaakaar bu leen arrange dañ koy voté. Mm-hmm. parce que xam ne ne mën nañ si bénéficier. te eh, bul fàtte ne am na ay anciens ministres ñu nekk Benno Bokk Yaakaar nekk ay député mm. te def loo xam ne eh, yoon mën na le si topp. si seen gestion ministère mm. yooyu. Mhm. donc ku mel noonu boo ko indilee loi bu mel noonu. même bu fekkee ne opposition bi ku sant Barthélemy Dias moo ko fi nekk député mais dañ koy voté parce que naan kii gis naa suma bopp. da leen di approché mhm. Mhm. maintenant deuxième aspect bi boo xam ne dina si am avantage mooy que boo xoolee dafa amoon une certaine euh, bi c'est-à-dire politique Sénégal boo ko waxee rek nga ne ñaari kuy ñoo fi nekk. mooy Ousmane Sonko. Macky Sall duñ si boole keneen. keneen duñ ko si boole. te loolu xam nga eh, neexul président Macky Sall. parce que bu hmm. sañoon aussi président boo gis buggul rek ñu naan diw rek mooy son alter ego fii. Hmm, hmm. parce que plus opposition opposant yi di bëri ñu mën a ah kon kay wax lu mu def rek dañ naan diw bokk na si lu tax mu def diw ak diw mais bu fekkee ne kenn nit rek lañ lay eh, yemale si biir dëkk bi. là finalement n'a plus trop de marge de manœuvre loo ko def rek ñu ne kii daf ko tey daf ko bëgg a faagaal parce que xam ne mooy son loolu yëpp loolu àdduna bi yëpp di wax. tey boo waxee ne Ousmane Sonko c'est le leader de l'opposition c'est le futur candidat à la présidentielle maintenant dynamique boobu bi polarisation boobu moom daf ko bëgg a casser carrément pas pas forcément mu casser euh, l'opposition mais mm. dynamique boobu nekk si xelu sénégalais yi nekk si xelu ñoo xam ne sax du ñu ay sénégalais ah nekk ci xelam moom xelam moom tamit. Mm-hmm. parce que koo laaj mu ne la Ousmane Sonko Macky Sall. duñ ci boole keneen. Mm-hmm. donc mais bii yoon nag bu Karim Wade Euh, ak Khalifa Sall dugaatee si làmb ji léegi nag dañu mën a ne ah léegi kon ñu ngi gis que ne 2024 du yomb parce que dina am Khalifa dina am Karim dina am Ousmane Sonko dina am Macky Sall wala keneen. yow moo gën a taxaw Bougane. non <laughs> man dem lay non yow dem lay wax dem lay wax tamit ñi dem Sénégal yoo xam <laughs> baax na. non dem lay non lay wax ñi nga xam ne. ñoo gën a représentatif quoi ak ñoom la Sénégalais di xam. Mm-hmm. Bougane moom bu la neexee nga nee sax euh, mm-hmm. moo gën a représentatif mais comme moom tamit comme représentativité. si élection lañ koy xamee moom dem na ñaari yoon parrainage bi mënu ko mm. jàll kon kooku mënu gu ma kat mënu gu ma xam ah, doole ah dem na fi local am fi plus de deux cent mille fois aussi bare ah Khalifa Sall Khalifa Sall <laughs> mën na surprendre ah, Khalifa Sall yow tamit dem na fi élection ci 2014 ba rafle mairie Dakar waaw mais loolu passé la <laughs> yàgg na waaw en fait dix ans mais ba tey rek xam nga xam nga élect xam nga poids élect poids ou électoral mm-hmm. euh, comme on appelle homme politique mm-hmm. si élection ko nga xamee mm-hmm. mais du mbër moo xam ne day xuutar xuutar si biir géew bi rek te ja te nit mu daanu defagul dara kooku dañ koy considéré man mii yaawu jaal sax war na ko ñeme donc ça so politique noonu lay demee de mais du c'est parce que da nga am doole rek ngay wër langue ji rek naan ku ma ñemee ku ma ñemee te doorugoo kenn kooku mënuma jàpp ne dara la donc hmm. maintenant euh, daaneelal ci maintenant fi may daanalee rek fi may hmm. daanalee mooy affaire opposition bi gis ñoom Euh, lii du leen mën a euh, séparer wala mu diviser leen. parce que mm. lu ñu lu ñu xam. ak mm-hmm. seen stratégie mooy lan. Mm-hmm. premier tour. na nit na candidat yi bëri. Mm. ñu ñu wër Macky Sall ndomb. Mm-hmm. bu ñu ko wëree ndomb bu ñu demee deuxième tour ku gën a ku gën a ku féete si kaw. Mm-hmm. deuxième tour ñu jàppale la ñëpp ñu jàppale ah, def da nga naan candidat Benno ak trois ñee. voilà léegi voilà ku mu mënta doon Macky fu muy jaar ba candidat. xam nga yow xamoo fu muy muy jaar. waaw ñu ànd ak moom. xam nga fu muy jaar ñu ànd ak ñu moom ñu ngi koy wutal yoon. non amul yoon daal su déggee ah, amul yoon ñuy wax mais non comme candidat mais dana am na ñoo xam ko man je veux rester je veux rester non Mame Birame ñoom George waxuñu benn man man wax Macky je je de am fi candidature man du man a dem ne Macky Sall toogal sa place du man maa ko war a waxtaanal mais war nga mën a lire a bi da koy tere

dinañu xool li ci li liñ naan li ci kanam raw li bët mm. et pourtant ñi ngi wax ñi ngi wax ñun waxuñu ko Barthélemy toog na fii ci ay plateau ba taay daan ne Macky Sall à trois à une troisième candidature wax na ko fi mais waxu Barthélemy aussi non non non bu ngeen wax waxu Barthélemy ne déedéet nag yéen tamit parce que ah. c'est un politique Barthélemy xam na bu baax li muy def mais Ramatoulaye Barthélemy gën xam droit man de droit ay notion laa ci am. Ah, ni nga ci amee notion laa ci amee peut-être moom moo ma gën a xam droit ah, sax moom laa wax li mu wax noonu man ci lettre yi ma jóge man lettre laa def lettre moderne bokk dinaa ci am quelques notions mais je peux pas avoir quelque chose de poussé. lettre moderne bu ñu nee nul ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs. je en principe. dégg ngeen Ousmane ma ni kii kële nu mu tuddati li mu leen waxoon nee na en principe. maintenant nag. li ci non dafa njëkk ni président Macky Sall mënul am. candidature troisième candidature. waaw après mu ne en principe. Ah, en principe kay mooy lu honnêtul. mais wax léegi nag yéen ngeen foog ni fi mu nekk nii. non c'est que man man boog. man du question de damay cautionner candidature am mais. man la lecture politique que j'ai moom écarté wul boppam ci lii nga xamante ni moom mooy 2024 bii écarté wu ci boppam. te fi mu nekk nii également ni ngeen gisee euh, configuration euh, gouvernement bi ngeen xam ni y a quelque chose qui se prépare kooku jarul sax ngay nekk un analyste politique ou bien nga nekk un politique pour xam ni configuration bi am na leneen lu nekk ci suuf. dina ko jéem mais est-ce que dina ko réussir ah mi ngi noonu nag maintenant le dernier mot revient au peuple man moom laay wax maam Biram mais la lecture qu'on peut mooy loolu buñ ko ko écartel nañ ko sénégalais yi sóoraale su boobaa ñoo jël seen ay dispositions par rapport ak ça hmm. conseil constitutionnel ñëpp a xam tamit élément euh, ñi nga xamante ñoo fa nekk ay Badio Camara ak yooyu ñëpp xam nañu maintenant boo bëggee toog nag daane Macky Sall bu ko ci kenn compté daane kii diw ak diw ak diw la <laughs> ah mais nañ non kenn waru ko cee compté laa ah <laughs> mhm, mhm. moom bu ko Macky Sall di dégg moom ko ci compté moom dina ah, ci la bokk de eh, du ngeen ko eh, ci dit nangu nañ ko sax nee naa la nee naa la tey tey tey nga toog nga toog nga toog rek nga mhm. toog sa bopp Mm-hmm. wéet yow sa bopp mais mm-hmm. man xalaatuma benn yoon que Macky Sall dina ne candidat la bëgg naa ne non man xalaat naa ne dina loolu attends ak nga bëgg a nekk nga bëgg a nekk ak nga nekk candidat bokkul <laughs> mais bëgg a nekk candidat bokkul Macky na annoncé ne day nekk candidat ay un million de personnes waaj obélix mu rek mu ne dootu bokkati waaw mhm. mais xam nga loo gis ah. rek ah. xam nga loo gis peuple bi rek xam nga Macky pouvoir bi ngeen koo jox yàgg la peuple moo ko mën a bu dee bu dee littérature bi ngay wax c'est ça littérature bi moom ça ne marche pas man man xam nga man ay fee laa lay wax dama ne la bu sénégalais yi nanguwul Macky Sall nekk candidat du ko nekk mais loolu la ñu wax pouvoir bi peuple bee ko sénégalais nag ñooy décidé te constitution bi xam nga Macky Sall ñeent kon nag bu leen si wax ay Macky Sall ñeent ñoo ko génnee Macky Sall loi wala littérature bii waaw kon yow xam nga yow mais xam nga loolu mais ça devient ñu toogee ñu ne <laughs> le président la république constitution bi lii la wax mais ñun ñëpp xam nañ ne du ko respecté mais combien de fois la non xaaral mais euh, xaaral waaw waaw d'accord naa loolu yëpp am na mais du tax tey ñu cautionné ko quand même ñu parce que bu dee génne cautionné nañ ko mais nañu ubbi rëbës ñi ñëpp génn. Mhm. parce que ña fa ne dañoo violer la loi. te littérature tax ñu dugg foofu. waaw. ah ma ne Ablaye moo taxaw mu ne amul droit nekk candidat. waaw léegi te loolu fu fu mujjee fu mujjee. <laughs> waaw fu mu waaw mais xam nga xam nga li wax nii. <laughs> non loolu li nga wax nii. bu dee loolu la coupe du monde demoon nañ ñu dóor ñu. premier tour jarul ñuy demaat. Mhm. c'est non dama ne Ablaye Ablaye ku nekk xamoon na ne. Ablaye moo ko waxoon waaw Georges ma laaj la waaw Georges bu dekkee ne Macky Sall déposé na candidature am Sénégalais accepté ko conseil constitutionnel moom waxuma ko. il suffit Macky déposé. voilà ñu ne ah. moom waxuma leen. Mhm. mais léegi ki nga xamante ne nii moo falu ci élection yooyu même bu dul Macky Sall. Mhm. mais bu boobaa kon mun nañu soppi euh, constitution bi article boobu ñu ñu ko. parce que kii succédé à Macky Sall. bu ko neexee mu ne day def trois mandats quatre mandats cinq mandats bu la neex sañu ne li mix. Ah, mais loolu mooy loolu mooy li président africain di ah, def. non non non ah. dañ ko wax te de <laughs> président africain bu fi nekk Afrique fii président bu fi nekk. Euh. te loolu mooy coow. <laughs> Hmm. mais est-ce que loolu du fatalisme. fatalisme la kay fatalisme mooy ñun africain yi duñ ci fatalisme mais mais tant que africain yi jóguñu hmm. africain ñoo ko mën a. xeex loolu c'est ça gis nga bu ñu demee fële assemblée générale Nations Unies. Hmm. benn président rek moo fa jóg di wax affaire troisième candidature. Mhm. mais des yëpp. lu leen lu ñuy tontu mooy malien yeeg guinéen yeeg dañu war toppatoo seen cas. à commencer par le président Embalo. Mhm. te ñoom am nañu lu leen doy seen dëkk Afrique fii xam nañ ne problème mu Afrique c' est le problème du troisième mandat. lu problème bu fa xew en Afrique. dañu wax les ay malédiction pétrole affaire yi. Mm-hmm. mais malédiction pétrole boobu fan lañ koy jaaree si mandat yooyu mandat yu bëri yi. Mm-hmm. temps bi jeex na tàkk euh, Georges Nessa mais li ma bëgg nga wax ko mooy euh, li ne ci constitution constitution dafay tere troisième candidature. waaw daf pour ñu lay déglu daf daf koy tere man nee naa la nee naa la nee naa la yow euh, suma émission bële paase. waaw gars yi moom dem la fii. Afrique waxatuma la Afrique mais Sénégal ak Mauritanie nga xam ne ataaya dañ ko gën a xam. Mm-hmm. waaye bàyyi <laughs> tey leer na waaw ñu terminé ak yow. waaw moom la moom la ñuy wax rek constitution bi li mu bind c'est clair et net. Mhm. maintenant nag li gënoon mooy président bu fi nekk mu respecté ko. respecté ko nga xamante ni moom mooy li ñu koy waxee charte ndey réew mi hmm. loolu on demande pas mieux Absolument. mais également nag ku ci jóg tamit bu ne dafay dafay dafay maanaam euh, teggi li nga xamante ni constitution bi moom la fi tëral mais le pouvoir appartient au peuple moom laay wax man li may bëgg wax mooy hmm. sénégalais nañu nañu sóoraale loolu maintenant nag ñëw hmm. rappelé serment bi président def serment bu mu def Mm-hmm. je la wax de. de remplir fidèlement. waaw de la charge la constitution. Mm-hmm. et de respecter la constitution. Mm-hmm. loolu la waat. Euh, kii ko tënk ko ci wolof. pouvoir renfort euh, euh, que moom day respecter constitution. damaa waat ni daa day respecter constitution te dina fexe ñu respecter constitution. constitution boobu lu ñu ci bind. nul ne peut faire plus nul exercer plus de deux mandats consécutifs. ci wolof maanaam kenn mënul tegle. ñaari lu ëpp. Euh, lu ëpp ñaari mandat Macky yaakaar naa dégg na ko wala waa këram ñu ngi leen di jaajëfal di leen jox rendez-vous leen incha ci beneen keppaar. wal qalami wa ma yasturuun mbokk jullit yi asalaamualeykum wa rahmatullah C3S moo dellu soit ak yéen di jongante mbindum alxuraan bi mu baaxoo amal at mu nekk édition ren bi nag dépôt yi ñeel candidat yi ci bëgg bokk dina door benn fan ci weeru octobre 2022 war a jeex fanweeri fan ak benn ci weeru octobre 2022 yow mi ci bëgg bokk dangay bind lu tolloog xët ci alxuraan